waaw maa ngi tudd Serigne Mbacké Dieng maay directeur commercial marketing bu Dangote waaw li ngeen gis ni ñu koy inauguré tey mu nekk pont solidarité euh, mi ngi euh, nekk ci foo xamante juróom-benni euh, village ñoo ko seq maanaam dafa nekk loo xamante ne bi ñu bindee wax ñu nekk dañu am préoccupation bu mag boo xamante ne mooy seen seen i jabar seeni i jigéen seen i doom mënuñu jàll ci beneen wet gi. ndax bu bu nawet jotee ndox mi duñ ci mën a jàll am na benn góor bu doon wax léegi ne dañ daan takk buum di ci dox fas dee na fi oto këpp na fi ak yeneen ak yeneen donc biñ ko yëgee lañu ne loolu mënuñ ko tànqablu donc moo tax ñu def euh, investissement bu toll nii te du pont bu ndaw ndax pont bi def na euh, lu ëpp fukki metre ak ñett euh, hauteur bi mi ngi toll ci à peu près euh, ñetti mètre te yaatuwaay bi toll na ci ñeenti mètre kon mooy wane ne que def nañ ci alal ju bëri lu xaw a jege fanweeri million ci suñu ay koppar loolu lépp rek pour taxaw askan yi nga xamante ne ñoom ñoo wër gox bi ñu nekk nii di Pout ëllëgu ko euh, diggante euh, Dangote ak population yi wala bokk mbokk euh, yi nga xam ne ñoo fi war ci li nga xam ne mooy li di ñëw. waaw am naa yaakaar ne li ñëw mooy dax ndax am na benn comité boo xamante ne sos nañ ko ak commune yi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo nekk ci li wër usine bi comité boobu li muy nar a def mooy jël besoin yi nga xamante ne population yi am nañ ko ba pare soumettre nañu ko bu ñu ko soumettre nag ñu daal di voter budget boo xamante ne dañ ci tontu. ndax commencé nañ ko sax lu jiitu loolu ci ay billet Makka ak euh, xaru tabaski yi ak sukkar koor yooyu yooyu ne dañoo bëgg mu gën a fës mu nekk ay infrastructure yoo xam ne dana mën a jariñ le plus grand nombre. jàngonteel ñun suñuy bàyyi bi ñu fiy nekk booba ñun man ñun tànk la booba nawet bu sa ñëw euh, nawet melul booba ndox mi da daan bañ léegi booba ravitaillement bu ñuy jënd dañ koy jënd avant taw bi si am dem dootu ñu kaso la dañu mel ni kaso ci la gën dootu ñu dem dootu ñu dikk ñu di ko def di di di déeméer di déeméer di suñuy oto bu dikkee fii eh, fële dañuy takk ay mbooloom dëkk bi yëpp yéen di di di bu dee nit aw fa chargé na fële di ma yot ciment ma man gis nga fii fii fi la daanu ak charge bi fas wa dee fii fii fii fii la dee ci xur wi la daanu dee mboolem jafe-jafe boo xam ne doomu aadama daanan ko jànkonteel rek def nañ ko ci yoon wi sa oto wët yi di meew yi fii la ñu daanu ñoom itam tan ma fa li la lat tan ma gi ngay dégg bi doyee fa lañ kuy fa la ko ndox mi ak fas waaw moom daal jafe-jafe bu doomu aadama dund dund nañ ko fii léegi nag bi nga xamante ni bi yàlla di ngi dimbali ne di di ak jamono yi dox di jamono yoon ba daal fii man Aramine Mbacke Mali moo ñëw ba sama kër seet si ma ndax noonu man maa gën a sës ci miin bi fi miin bi nekk ak sama kër sama village ñëw ba sama kër ni ma day dañ laa dañ laa nuyu seet di di di leen si pour yéem dëkk ak dañ fee samp usine te dañoo bëgg a euh, xam gox bi nekk ak yéen ak ah, ah, seen i jafe-jafe yi dañu ci mën nu xam ma ne ko ah. noonu de sunu première jafe-jafe mooy pompe yi nu jëfandiku ba man nu mën a def jafe-jafe bu nu am daal booboo ci jëkk te na nañu jafe-jafe yeneen ak yeneen ci wàllu wér gi yaram wàllu école wàllu lépp waaye nag loolu daal muy suñu premier jafe-jafe léegi mi nga xamante ni bii wax rami ni ma loolu di bind naa ko fi ñëw ànd ak man ba ci pom bi mun ma pom bii di dinaa la boole ak ñi ñi ne chef service bi ci usine bi muy seer ma daal di bind lettre jox ko seen seen jàllale ko bala bala jàllale ko ci directeur général bi jox ko dégg maam ba ñu ba ñu adapté ko keroog bi ñu ko adapté. léegi fi ñu toll nii hmm? at juróom fukki at man 42 laa judd te dama fee fekk jafe-jafe bat bii moo ko bëgg a faj. waaw jàkkaarloo waaw 42 laa judd mais fi mu na ni fi mu boobu saafara kay beneen la ñuy wax waaye boobu moom faju na léegi bi problème bi ci ëpp sunu du ci nun doole mooy CM bi i ñu bëgg fii fii CM bi nag train bi am nañu ko CM bi train bi am nañu ko danoo seet nag dëkk bi nga xam ne moo gën a nekk ci millier bi foofu la nit ñi entré ba train bi am na muy chef village bii foofu la village boobu la la bi nekk loolu pour ñu defare ko ndax sunu jur yi jàng ba war a jàll bu ñu demee dàng kër yu nu leen teg amatuñ leen amatuñ ba tax nañ bu ne yu bari sawatuñoo jàng kilifa yu bari sawatuñoo jàng jàngaloo seen doom ndax boo bu boo jàngaloo sa doom ba ba ba mu war a jàll doo am foo ko teg te it fa koy teg jafe-jafe rek la fa am. loolu daal problème la ci noonu bu rëy rëy rëy naa ne sax Dangote yoon wi dañ ko koy ñaan mu gën koo prolongé ba ba dëkk yi la nu wër muy Fulum loolu la nu bëgg ndax Fulum ak nun noo bokk jàngoro. te ñaata village ñoo partagé ton pont bi ñaata ñaata dëkk la. juróom-ñaari dëkk Fulum eh, Ndey Ngomeen seen séréer seen olof eh, Galaan. Euh, juróom-ñaari dëkk yi ñoo ñoo composé boor bi ñaxib ah ñaxib tudd ma ko ñaxib. ñoom mën nañ ko jëriñoo fi. waaw ñoom ñëpp mën nañ ko jëriñ ñoom ñëpp seen xol sedd na ci mën nañ koo jëriñoo bu ñu tëddee nelaw ndax njaboot gi accident bu ne am na fi accident bu ne ab ab ab euh, clando daanoo na fi ci biir po dugg ci biir pax bi aw fas dee na fii te fas bu man la doon yot ciment fii la daanoo dee waaw fii daal wax Eh, noo ngi sant Dangote ndax Dangote kat am na jafe am na teraanga yu mu nuy jëf mi ngi nu yóbbu Màkka mi ngi nu jox xari tabaski mi ngi nu jox suukaru koor eh, mi ngi nu jox mi suukaru koor di nu jox tabaski te loolu wax di yàlla sant nu ko ba ak baaxam rek la ko def kon noonu noo koy sant di ko ñaan yàlla isinam bi yàlla ko yàlla jëmee kanam loolu daal dëgg yàlla sant nañ ko gërëm nañ ko kontaan ci lool ndax amoon na ci jafe-jafe bu metti bëgg a dem te doo mën a dem façon bu nekk dal nañu fii ci pom bi sunu fas daanu na fii dee ci oto yi dañ fii daanu oto yi dañ fi daan daanu bu ñu bu musaana euh, taw duñu jàll fi mu nekk kontaan nag euh, dañu am ci lii. jigéen xame nañ ko ci wàllu web mhm. rawatina bu soxlaa boppam. waaw ci loolee la fay daan demee euh, daan na dem di nga euh, di nga kii ba toll boo xam ne war a dem pour doo mën a dem ñun fii am na fii fii ci suufu pom bi am na ku ci am doom dañ ko mujjee delloo fekk saret yi amuñu saret dañoo ñëw ba fii mu am doom ñu yóbbu ko kër ga doo koy rafetlu waaw fi mu nekk sant la sant yàlla la ñu sant. mooy dàq kay fi mu nekk amuñu ko moom ah sant leen rek di leen sa ñaan. yokk moom kay loolu ma ne la ñaan ñun koy yokk ñaan ah léegi ñoo ngi bëgg waa Dangote li ñu def kontaan nañ ci waaye mu yokkal ñu may ñu di changère bu ñoo xam ne bu ñu bëggee jot suñu bopp jot suñu bopp fi entre feek puut am nañ fi doom ba tàyyi di dellu ñibbi waaw rafet nañu liggéey bi bu baax a baax kontaan nañ ci yokk la ñuy wax yokk waaye kay kontaan nañu fi mu nekk lu ñuy muccee fi mu nekk xam nga entre fii ak Pout sept kilomètres la keroog dem naa quatre heures de matin laa jóge fi yóbbu sama doom Pout ñu ni matuwul ma indi ko kër ga fii la amee doom mujjuwu la dellu yóbbuwaatuma ko fii laa ko révélé ah nan la ñuy def bu ñu amulee oto du ñu dem bu ñu amulee oto du ñu dem fii la ñuy amee doom man mi sax damay rewale damay dagg de. bu weesoo wàllu wér gu yaram wàllu koom ndax jigéen aussi xam nañ ko ci maanaam activité de économique jënd ak jaay surtout zone yu mel nii pont bi aussi peut être mën na gën a yomb la amuñ ah. yaa ngi daw rek xoolal dëglul ñu ne amuñu yéen ak yaay ndax yoon bi dañoo amul woon yoon dematuñu fenn bu dul ci journée yi amuñu lu ñuy liggéey ndaxte mënuñoo dem mënuñoo ñëw ne yoon beeg kon nga xam ne baaxul. mais léegi ne ak pont bi nii loolu dina leen permettre. waaw waaw mu ngi tane ndaxte léegi boo jógee fee 10 heures dangay am oto bu lay indi ba fii. da ngay dem Dakar ñëw di nga xam ne di ngay am oto bu lay kii ndax yoon bi baax mu ngi ko baax daal. kon wu ci activité ñu ngi ci ñu ngi koy commencé de lu ñu ci yokk ñu nangu. man Ngagne Ciss laa tudd nekk chef de village bu ñëxib bii doon pays seen seen nord ma doon seen iliman pratique bu arab nan ngeen gisee pont euh, bi ban sëñ bi sëñ bi jërëjëf soo ma laajee loolu kontaan na ci lool ndax ni ñu gisee pont bi wax dëgg yàlla kontaan nañu dégg nañu suñu xol yëpp sedd na li mu li ñu doon ñaan yëpp ci mel na ci ba ñu juddoo ba léegi ñu ngi koy door am ndax ba ñu juddoo ba léegi 1972 la ñu nekkoon Morolan 72 la ñu jógee Morolan ñëw fii ndey ñëpp. golaan seen wolof seen séeréer manku ngomeen ba ñu fi nekkee ba léegi canal bii mu ngi tudd yogaa yàq fii man fii laa judd guy yii ñoo tudd yogaa yàq boo gisee guy ni mu bare moo tax ñu tudd ko yogaa yàq fii la picc yi den dale fii la yi daan naaw fii lañ daan fanaan wolof waaw kon suñu demee tey bi lii am war nañ leen sant gërëm leen balu leen tax ak ndax fii boobu mu daan jaar gi nga taaru garab bële ci lañ daan yeew bu mu diif bu mu teen yi ñi jox ko sànn ko ñi ñi nekk fii ñu aw ko nga mën a téye ndox mi nga door a jàll soo ko defoon nga fi nga lef faji ji waaw kay fii chef de village Ngomen xaw na fii dee guy gën a daanu guy gën a daanu foofu la kala benn waa ji wax mañang pul bu ñuy wax moo tëb daanu ci biir ndox mi kal ko fële kanam kar ko mu door a yel yeew yeew Ablaye Ngom ñu dugal ko ci ndox mi ñu indi ko génne ko teg ko fële ñu di ko borong be ndox mi génn loolu yëpp dal nañu fii waaw jigéen bu bëgg mucc nu muy def foo jëm foo jëm jigéen yu mucc bëgg a mucc taatu ci xew yële ci ngay mucc ci xew yële ndox amu fi pour jigéen wu fi amoo fooy jaar nooy def ndaw saa ngi bëgg a dee fii la ñu mucc ci taaru garab taatu seexu yële seexu yële booba garab benn amul garab yi amu fii kon loolu loolu bu nu ko amee tey tey tey kontaan nañu bëgg nañu sant nañu gërëm nañu dangoot yàlla na yàlla fay dangoot lépp lu ngeen fi bëgg yàlla leen ko yàlla may sëñ bi loolu de loolu mun naa la ko wax bari na doom yu juddu fii lañ juddoo si taatu seexu yii waaw nga door a yenu liir bi dem Pout boo fi mënee jàll sax bii dem Pout lii ba ko ba ñu koy def fii ba koy def fii saay mii moo nu dimbali saay mii borom tool bii benn at mu jël katar bala bi ma ba fii maa ba fële suul ko ndëgër nii oto oto door fi mën a jaar saret yi door fi mën a jaar nga door mën a dem Pout waaye du fii ngay jaar waaw saay mii moo ko def fii voilà ah waay difficulté yooyu nag man man ci wolof laa lay wax